tàgg Ahmadul Amin moom la nu may surul masuun xar baax la fee sa bani góor ñu yëkkati ay kàddu yu cant ak kàddu yu ngërëm jëmale ko ci mbooleem ñi nga xam ne ni moom ñoom lañu ñu bokkal Sénégal li ñuy njëkk def nag mooy siyaare ki nga xam tey ji moo fi toogal Seexul Xaddim di sëriñ Muntaxa di ñaan yàlla yan bi yàlla na oyof ci kawam di ñaanal suñu jàmbaar ji fi jógee bi Cheikh Sidil Muxtaar yàlla tas ñu ci barkeem te wane la ko maama yu teddeex di yëkkati ay kàddu nag yuy sant ak ngërëm ci mbooleem njabootu sëriñ Baara ndax bi màggal gi xam ngeen ni ni mu demee ren ji ak na mu daan demee dafa bokkul ndax sëriñ Tuubaa dafi daan nekk di ko màggal mu jóge fi ci fan yu néew ñun ñu doye di ñu mata di ñu toog ca place ba mu toogoon fas yéene ko màggal kon dana mel ni màggal googu du mën na mel ni nam daan mel waaye li tax ñuy sant yàlla nag mooy bu fekkoon ni bokk yi dañ noo seetaan mën naa am du egsi fi mu egsi waaye nag mbokk yi nga xam ne ñoom lañ bokkal xat yi dafa mel ni ñoom ñoo ñu ëpp yéene ci bis bi ba taxawaay buñ ci waroon a taxaw ñoom taxaw nañ ko ba mu mat sëkk sëkk sëkk sëkk kon nag ci turu sëriñ Moustapha ak i rakkam ñoo ngi sant mboolem koo xam ne ni bokk nañu yow Cheikhul Khadim di wëlbatiku nag di sëriñ ci turu sëriñ Moustapha di sant rakkam yi ak doomam yi nga xam ne ni ñoom la yëkkati woon jox leen liggéey bii ngir ñu taxawe ko ñii ñoo xam ne nii gone yu am jom lañu waaye mën nañu du ñuy gone sax xëy na at yi mooy tuuti waaye boo bokkee ci cheikhul xadim liggéey bu ñu lay yëkkati jox la ko te nga nangoo ko cheikhul xadim cheikhul xadim a ko yoral boppam ba tax na yaakaar ji ñu amoon ci ñoom def nañu lépp ba mu mat sëkk sëkk sëkk li ko commencé ci sëriñ Cheikh Thioro mi nga xam ne moom moo nekk porte parole kër gi ñu teg ma ci wetam ma nekkoon coordinateur bi maa ngi sant mboolem koo xam ne sëtub sëriñ Baara la nga bokk ci commission ak nga ñàkk bokk ci commission ñoo ci bokk yam ndax ñëpp mënuñoo bokk nekk ci commission. Mhm. waaye kenn ku ci nekk moo xem moo xam xelam xalaatam jotam ak naam yëpp jox nañu ko ba mat sëkk ànd ko ak ñun. kon nag ñoo ngi leen di sant bu baax ci turu sëñ Moustapha di ñaan ci seen darajay maam yéen xam li ngeen soxla woon ngeen bëgg yàlla na leen ko soleen seen maam defal. Mhm. di walbatiku nag di yëkkatiwaat ay kàddu yu jóge ci sëriñ Moustapha jëmee ci li nga xam ne nii mooy matérielu sëriñ muy taalibe yi. ndax ab sëriñ amul loolu taalibe yi ab sëriñ mënul dara lépp taalibe yi ko mën kon nag bis bi bu demee ba jag moom ñu ngi ciy sant taalibe yi bu baax a baax a baax di leen ñaanal yàlla ak sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moom lañu yaakaar te doyloo ko ñoo xam seen bëgg-bëgg ak seeni i yàlla nañ sëriñ tubaa jiitu. di mbool di sant ñi nga xam ne nii ñoom la ñu bokkal Sénégal rawatina ñi nga xam ne ñoom lañu ñu bokkal diine ji. ndax lu jiitu lii waroon nañoo def lii sax sant leen ci taxawaay yu màgg yi nga xam ne taxaw nañ ko bi ñuy ñàkkee suñu jàmbaar di Cheikh Sidi Mokhtar ndax ku ñàkk kooku bu la nit ñi seetaanoon dana metti lool waaye alhamdulilahi rabbil alamin bi nga xamee ne nii lim liggéeyal sunu borom bi suñu borom fay ko ci bisam bi ba nga xam mboolem umma islam bi yëpp àndandoon nañ ñëw ànd ko ak ñun ba mu oyof ci ñun kon ñooñu ci turu Serigne Moustapha ñoo ngi leen sant bu baax a baax a baax di wëlbatiku di sant it comme ni ko Serigne Mountakha waxee mooy àdduna si ñaar a fi nekk temporel bi ak spirituel bi ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk réew métt di ko commencé ci président de la république ak mboolem gouvernement bi ak mboolem ñi nga xam ne yor nañu ay chambre ñoom ñëpp taxawaay bi nga xam ne nii war nañ ko cee taxaw taxaw nañ ko ci ba mën sa kon loolu sëriñ Moussa nee mi ngi leen ciy sant bu baax a baax a a baax li muy mujj nag mooy sëriñ Moussa nee na yéen jabootu sëriñ Bara ngeen jàpp ni moom sëriñ Moussa du seenub sëriñ de seenub taalibe la bu nekk ci seen kanam di fas yéene li ngeen xam ne nii moo ngeen bëgg a liggéeyal sëriñ maam di ko jaaralee ci moom moo xam nu mu toll ak nu ngeen ko bëgge saa su ko yëgee fab na laxasaayam takk ko ci liggéeyam fas yéene ànd ak yéen liggéeyal sëriñ baara boobu kon nag ñoo ngi sant ñëpp di la ñaanal mboolem waa Sénégal jàmm am ci réew mi ndax jàmm rek moo moo moo baax ndax lu nit am te amoo jàmm amoo dara lépp lu nit di ñàkk te am jàmmit ñàkkoo dara di wëlbatiku di sant mboolem la presse sénégalaise du ñu tudd benn organe bàyyi benn organe daal mbooleem koo xam ne yaa ngi yëngu ci tas xabaar soo fi ñëwul sa ndaw ñëw na wala sa beneen représentant boo xam ne yaa ngi bokk ak moom di liggéey ñëw fi kon nag ñoo ngi leen di sant bu baax a baax ndax lii ngeen ñuy deful defal mënuluñ ko suñu bopp. ndax bu fekkoon ne taxawu leen bu nu waxee suñuy wax ci saal bi ñu ko wax rek la yam waaye nag li ñuy wax bu fekkee mën naa tasaaroo ba waa àdduna mën cee jëriñu ci yéen la ko jaaree kon yéen tam ñoo ngi leen di sant bu baax a baax di leen ñaanal yàlla ak Serigne Touba yokk seen i maqaama ñi ci moom seen i organe yàlla na leen yàlla demal ba mu doon télévision yu mag ñi nga xam ne amaguñ ko tamit yàlla na leen yàlla may loo xam ne dinañ ci mën a liggéey Cheikhul Khadim noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax wasalaamaaleykum wa rahmatullah nan tàgg Ahmadul Amin moom la nu may surul masuun xar baax la fee sa baniku